waaw képp ku tisaare ay vidéo moo xam yu muy tuube la wala yu muy waxe la neen day mel ne fo boo ko sànni ci àll ba te ndigal li mooy nañ ko fob sànni ci àll ba loolu loolu lañ sëñ bi digal lépp luy tax ñuy mbir jël mbiram tege ne la rek sëñ ba wax na ko ci maanaam bu doon jaasee nañ ko nañ dagg bopp bi bu doon bomba nañ ko ko dóor nañ ko fab sànni ci àll ba nañ ko fab seen sànni ci seen ba yëpp sëñ bi jëfandikoo na ko te sëñ bi lañuy ñuy déglu moom lu mu lum rafet rafet lum ñaaw ñaaw fi mu ne waruñu cee am soxla maanaam waruñu ko jéem a déglu sax bay gëstu mbiram bay xam li muy wax bu fekkee ñi ngi jëfandikoo ndigal ndigal di mooy nañ ko fab sànni ca àll ba nañ jëfe loolu ba sëñ bi digalaat ñu ci leneen bu ñu sëñ bi ne woon jàpp leen ko bu subaa ñun ñëpp ñu jàpp ko def ko ne suñu bopp maanaam kenn ñàkkul ci moom ma ne kenn bañu ko waaye nag murit ndigal day jëfandikoo sëñ bi daa génn wax ak nun ñun lañ yittewoo li ñu sëñ bi li sëñ bi wax te bañ a yittewoo moom ay waxam ndax day mel ne fii ne maanaam maanaam bu ñu yittewoo ay waxam rek yittewootuñu waxi sëñ bi ba sëñ bi danañu fob leen ko sànni ca àll ba moom daa génn ne day tuub sëñ bi la tooñ wala wala wala kan la war kan la war a tuubal sëñ bi la war a tuubal wala dafa war a def vidéo sànni ko noonu kon tuub gi muy tuubal sëñ bi xanaa da koy for ndax vidéo buñ ko foree jox jox ko sëñ bi loolu mooy da ko sëñ bi da koo for kon noon lay tuubale sëñ bi am day jaxase lii du ak tuub maanaam ak ñaawal la ndax ci biir tuub gi def na ci liñ koy tere maanaam daa fob jëwriñ teg koo ko jiital wax mu door cee topp ci biir tuub gi mi ngi ciy digle ak a tere kon ba tey mi ngi mi ngi jiite li mu doon jiite mi ngi gën a dëggal ak jëwriñam kon moom ci biir tuub bi mu ngi def liñ koy tere loolu nag bokkul ci sarti tuub ba ca desit tuub yi nii du aw def déclaration wax ak murid yi wax ak jullit yëpp moom mu defaat déclaration def euh, vidéo tuub ndax loolu mooy tuub moom dafa teg place am fu kawee kawee kawee day mel ni day day ñaawal kon murid yi ñoo war a am fulla ci xeet yi maanaam sëñ bi indil nañu solution te sëñ bi mooy njiitul yoon wi maanaam bi ñu amee jafe-jafe ñun ñëpp dañ ne sëñ bi sëñ bi rek sëñ bi rek la ñuy déglu sëñ bi rek la ñuy déglu na ci sëñ bi wax na ci sëñ bi wax sëñ bi bi génne génnee daa daal di indi solution ngir ñu mën a solution boobu mën a sotti nag faaw murid yi ñoo ci topp ñooy topp li leen sëriñ bi wax